صلاة الله ثم السلام ففرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر allazi laysa li awwaliyatihi bidayatun wala li axiriyatihi nihayatun kaana qabla alqabli fi amaain ma fawqahu hawaun wa ma taxtahu hawa قيد كيف ونزه عن الكيفية وأيد الأين وتقدس عن الأينية مستحيل في الله أين وكيف وزمان أمري وأن يصبح لي سبحانه ليس من شيء ولا عن شيء ولا في شيء ولا دون شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء ولا مع شيء ولا على شيء والصلاة والسلام على جنة الشهود والمعارف منبر العلوم والعوارف witri adadi wa lisaani abad qud bi daairati lwasaili wa qiblati tawajjuhati li kulli raxibin wasail wa radi allahu an mazhari lwilayati barzaxi lbahrayni sayidi ahmad bni muhammad natijani وعن خليفته في كل العوالم العينيات والغينيات man azaaxa an wujuhi lxaqaiqi astaara almajazat cheikh alislami wa saahibi alfayda mawlana alhaji ibrahima ñas xadrata ustaaz alaxlaaqi walhimam wa uswati duaati fi kulli lumam sayidi mohammadun ilmahi ibrahim abdillahi mohammad ñas asa min zikruha xulbun lazizun zakarnaha dikaaran li musamma فخامة سيدي الشيخ شفيع إبراهيم نس سيادة المقدمين والمريدين والتلاميذ والأساتذة والدعاة ومن ضمه هذا الجمع الكريم من السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الليلة بين سعادتين سعادة ذكرى ميلاد رسول الله مرحبا برسول الله وبميلاد رسول الله وأي عيد عيد النبي ابن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العالمي بدا من القفر نورا للورى وهدى يا لتمدن أما الكون من بدمي وبين سعادة حضوري العلم العليم والجيلم الفهيم الذي عرفتموه بعلو المستوى في العلمين الرواية والدراية المنطوق والمفهوم الظاهر والباطن الشيخ ماهي الذي عرفتموه بالعربية السليمة البليغة والخطابة الوجيهة المفيدة حيث أنه إذا بدأ يرتجل بالعربية ينسيك قصة ابن سائدة الأيادي وعبد القاهر الجرجاني ومن وكل فسيح من الأصلين القديم والحديث شمشنة أعرفها من آخر زمان هل تلد الحية إلا الحية سيدي شيخ محمد الماهي فما أكثر من يحتاج إليكم وما أضيق فرصتكم وما أغلى وقتكم الثمين الذي بذلتموه لنا ولشباب دائرة العلا دنوتم شيخ مام الحاج عبد الله مرحبا بك وبمن معك وبما معك من العلم والأسرار والأنوار سيد إبراهيم لو ما شاء الله دنوتم wallahu yashhadu annakum ma danawtum illa li nantafia minkum wa min culuumikum wa min axlaaqikum almuhammadiya kama yaqulu xasan alfayda الشيخان لوالدكم الكريم دنوتم بحمد الله حتى أزوركم وقد كان مالي أن زيارتكم بد لو كان لحالي لسان من اليوم لحكى بقول الشاعر القائل أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم ومملوككم من بيعكم وشراكم كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي وإن قلت الأموال روحي فداكم وما شرف الأكوان إلا جمالكم وما يقصد الأحباب إلا سناكم وإن قيل لي ماذا على الله تشتهي أقول رضا الرحمن ثم رضاكم سيدي ها هو ذا أمامك الأحبار والمريدون القاتلون ومن هبوا من البلاد البعيدة والمجاورة من نيجيريا ومن موريتانيا ومن الجزائر ومن غامبيا كل حضروا مقدمين أعلى القلوب الظامئة لتمطر عليها مزون الأنوار من سماء لدنيتك العليا وإنديتك الكبرى التي ورثتها من والدك المشهود له بالصدق والإبداع في كل ميدان لم لا وهو القائل وذا الأب فان ليس فيه بقية وما هو إلا المصطفى للمنادي وأتذكر أبياتا نفث بها صدر الموتور ونحن في قمم بمبرة أقول فيها إنا برؤيا محياكم كالوجه في جنة الله بين السندس الخضر أبقاك ربي ألا يسر وعافية يزورك الخلق من جن ومن بشر mbooloo mi ñoo ngi sant yàlla di julli ci mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dara desatul lu ñuy wax ci sëriñ Mahi lu dul oustaz Barham Seck wax na ko sëriñ Cheikh Mahamadul Mahi nekkul jëmm ji dox mais Cheikh Mouhamadul Mahi maqaama la Cheikh Mouhamadul Mahi symbole la Cheikh Mouhamadul Mahi garab la bu xawee ci yàlla xam nga Cheikh Tidiane yi daan nga wax maa xalaftu siwa aliyin xarazima man kenn du sama xalifa wutaluma kenn sama ginnaaw lu dul ali xarazim te ali xarazim kenn ku nekk xam na ne moo njëkk a génn àdduna ci Cheikh Tidiane yi laaj naa ko benn muqaddam bu mag di xalifa ci réew mi ñu ràññee ko xam ko bi ma tarbiyoo bees ma janoog moom ñoo ngi joxante ay asila ndax sama maam la ma ne ko sëñ bi damaa gàtt Cheikhu Tidiane nee na man wutalu ma kenn ku dul Ali Harazim mais Ali Harazim moo njëkk a génn àdduna ci Cheikhu Tidiane su nekkee ne kay wuutu moo njëkk a génn ka muy wuutu foofu nan lay mel mu ne ma xaw ma ma xam ne mbir mi ku naanewul ci bàyyi ñëpp doo ko mën a ndekete maa xallatu si waa aliin harazima li muy fii mooy ali harazim maqaama ku fa yegg yaay sama xalifa nekkul jëmm ji lañu wër Cheikh Mahi jëmm la soo demee ci dëddu àdduna misaal la fa soo demee ci xam-xam demee ci rafet misaal la fa moo tax ma tuddee ko ustaazul axlaaqi wal himam wa uswatu duaati fi kulli umam symbole la macha allah wàccee boppam gi rek wane na ko ndax Jaafaru Saadiq daan na wax tajidu aksara ulama i ilman aksarahum tawaaduan borom xam-xam yi ku la ci gën a wàccee boppam moo la ëpp maqaam ëpp xam-xam naka jekk jikko yi tegu ci yu rafet la xam-xam yi tegu ci xam-xamu maa Mahi amul werante ndax ba ngeen man ba ma ko dalee gis ba léegi muy waxtaan musuma gis mu yor këyit du ci xool te xam nga xam-xam dëgg-dëgg ci dënn dënn lañ koy jëlee du ci këyit laysa ilmul lisaani wayka bi ilmin innama al ilmu xashyatun fi lfuaadi laysa al ilmu bi kasrati riwaaya innama huwa nuurun ma ak diraaya borom xam-xam ne xam-xam leer la bu tàkk ci dënnu doomu aadama su koy wax soxlawul muy xool kayit Imaamul Gasaali jàng na téere yi daanaka ba jeexal ko su la neexee ndax lam jàngul bariwul mu dajale lam jàngoon di ñibbi mu dajeeg addu kalpe yi ñu sàcc bagage am mu topp ci di wax ilmi ilmi way dimbaleel ma ci sama xam-xam way dimbaleel ma ci sama xam-xam magu àddu kalpe yi agresseur bi taxaw ne leen taxaw leen ñu taxaw mu ne ko yow sa xam-xam bi fii la nekk ci sa saag bi mu ne sama xam-xam bi yépp bi su ngeen ko yóbbee yóbbu li ma jàng ci at yépp mu ne joxaat leen ko xam-xamam waaye maa ngi lay dénk dara àddu kalpe bay wax agresseur bi maa ngi lay dénk dara soo demee fexeel sa xam-xam nekk ci sa dënn bu ko di bàyyi ci kayit kayit man naa lakk man naa réer kayit man naa max waaye fexeel jël sax xam-xam def ko ci sa dënn Baay Ñas ne woon nañu ne alxaqu yantiqu wala yu baari yàlla day wax faalewul ci làmmiñu kan lay wax su ko neexee mu wax ci làmmiñu dof su ko neexee mu wax ci làmmiñu màndikat su ko neexee mu wax ci làmmiñu agresseur mu ne alxikmatu tuuxasu min gayri xakimin xam-xam dinañ ko jëlee ci ko amul xam-xam sax kii agresseur la loolay métiem waaye limam yi dem góor góorgóorlu balam jàngoon yëpp mu def ko ci dënnam mu mujj nekk al mujaddid fi zaman yi Cheikh maa yi doo ko gis mu téye mu noonu la ko yàlla sàkki alhamdulilah li ma wax yëpp day bang te loolu kéemaan la nekkul lu yomb buur ñaata jotaay lay def ci weer wi macha allah moom mooy fàttali benn waaye boo xam ne da doon def conférence ndekete moom big feutre la bindee kayit yi am kaasu ndox bu ñu ko tegaleen ci wet gi am ku yëngal taabal bi kaasu ndox mu ngi sànn tuuru ci kayit yi ndeysaan euh, bind yi daal di effacé wu conférence boobu soo ko fekkee woon rek da nga ci yàlla nga xam ne xam-xam daal waruñ ko bàyyi ci kayit waaye ilmi ma i ma yemmamtu saara ma i qalbi wiaun lahu la batnu sunduqi in kuntu fi lbeyti kaana al ilmu ma fi suuqi kaana al ilmu fi suuqi l'imam euh, askane mu ne man ilmi ma i sama xam-xam day nekk ak man xay suma yemmamtu saara may fu ma dox rek maa ngi ak sama xam-xam ilmi wi aun qalbi wi aun lahu sama xol mooy ndabalu xam-xam bi laa bat nu sunduqi lu samay te keesu te lu samay bibliothèque eh, ndax xam-xam dañ koy def ci xol yonent bi saa sallam nee na al ilmu ilmaani ilmu lisaani wa ilmu qalbi wa amma ilmu lisaani fa zalika xujjatullahi ala bni aadama wa amma ilmu qalbi fa zalika al ilmu naafi mu ne xam-xam ñaar la xam-xamu làmmiñ ak xam-xamu xol xam-xamu làmmiñ mu ne loolu mooy layub yàlla ci kaw suuf ñaar ci kaw doomu aadama ilmul lisaani mooy hujjatullahi alab ni aadama waaye wa amma ilmul qalbi su nekkee ne xam-xamu xol la fa dalika al ilmu naafi boobu xam-xam guy njëriñ ji boobu la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass indi donte indi na ñaar yëpp waaye parce que def na moom xamal tu si xaatibil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya man Baay dama yenu secret Cheikh Tidiane mi matal wilaaya ci xeetu yonent yàlla Muhammad ñu ne ko luy sa matériel lan nga yor luy sa bagage mu ne jamaatu dama boole bayna zawqi xam-xam ku ñuy mos mooy xam-xamu dënn diraaya xam-xam boo xam ne da ngay taf sa dënn ci kayit jàng pour mokkal ko kon xam-xam ñaar la bi ngay taf sa dënn ci kayit jàng ko mooy iqra boobu la yàlla wax waaye nag am na loo xam ne allamal insaana ma lam ya'lam boobu xam-xam buy jóge ci xol la di dem ci xol su ngeen gisee nit di def ci année bi ay ay téeméeri jotaay te amul benn boo xam ne da ngay gis mu téye kayit waaye day téye micro di sotti di walwali nga xam ne kooku dafa wiraasa muhammadiya la cheikh Mahi da ngay ne moom xam ne nit yàlla la xam ne walu yàlla la soxlawul ngay laaj xam nga bàyyam cheikh Ibrahim Niass su koy rëju def ko xooloon benn bés ba ne ko wa sadru minka bi nuuril xaqi munshirihun hatta bada nuuruhu ala muhayaak yow sa dënn bi Cheikh Ibrahima te ki koy wax nit ku rëy la ku màgg la di xalifa Cheikh Tidiane fii jiyaani almaghrib nee na bàyyi was sadru min ko sa dënn bi bi nuuril xaqi mun sharihun dafa ubbeeku ci leeru yàlla gi xatta bada nuuruhu ala maxayaaka ba leer gi daal di feeñ sa kanam ku la gis rek xam na yow yaay waaj sànq rek am ku may dee kuy waxtaan ak ñun Cheikh Ahmad Sow mu ne maqkatu suuf maqkatu suuf mooy kuy maq suuf mu ne soo ne jàkk moom sax xam ne kii maqkatu suuf la wala naankatu sàngara wala tuurkatu eh, yàmba léeg-léeg da ngay di jàkk ak ñoom rek xam ne kii de lii la loolu si mbiru àdduna la naka koo xam ne fu mu toll moo ngi naan ci leeru yàlla yi di naan ci leeru xam-xam da ngay ne jàkk moom xam ne kii nitu yàlla la soxlawul ñuy présenté kuy maa yi ñas ndax arab dañuy wax inna min al mudilaati tawdihal waadihaati bokk na ci gën a jafe yi nga jël lu leer ba pare di ko leeralaat ndax soo bëggee leeral li leer rek day lëndëm lasnaa nusammika ijlaalan wa takrumatan wa qadruka almuqtali an zaaka yugnina idan faradta wa ma shuribta fi sifatin fa xasbuna zaaka idahan wa tibyana su nekkee ne da ngaa beddeeku nuróowoo kenn te nga sànni àdduna fële limaam Shaafi yi lan la wax alayya siyaabun law tuqaasu jamiuha bi falsin la kaana alfalsu minhunna akthara wa fihinna nafsun law tuqaasu bimisliha nufuusul wara kaarita jalla wa akbara alayya thiyaabu mu ne da may gis ma sol yére yu woyof ngir woyofal adduna yére yi woyof alayya thiyaabu law tuqaasu jamiiwa soo jëloon yére yépp nga koy xalaat ñaata lay tollool ci xaalis bi falsin la kaanal falsin na aksara benn dërëm sax xëy na moo ëpp yére yi ma sol kiima ak garaat waaye woo fii hinna nafsun ci biir yére yi am na bakkan joo xam ne am na jëmm joo xam ne moo ngi dund law tuqaasu bi misliha nufuusul wara soo jëloon bakkanu mbindeef yàlla yépp nga peesale nag bakkan ji danga nga fekk sama bakkan bi moo ëpp mbooleem bakkan yooyu ndekete mbir mi nekkul ci yére déedéet nekkul ci dàll inna al wilayata haysu kaanat lam takun fi husni zayin aw jamili niaani inna al wilayata wilaya haysu kaanat fu mën a nekk moom nekkul fi husni zayin ci yére yu rafet aw jamili niaani wala dàll yu rafet déedéet Euh, waa ji bëggoon naa nekk sëriñ sol yëre yu rëy kaalawu kaala gu rëy benn waaye di ko wax ne eh, yow borom kaala gi mu gestu mu ne ko mënoo wax sëriñ bi di mu wax borom kaala gi mbir mi du ci eh, yëre yi waaye nde ndeke da nga gis saxsun tara fawqahu albaasa naatiqatan bil xusni wal xayri wal ixlaasi linnaasi lakinna laabisahu mimma bila xasabin li suuqi wal faxshi wal xubs li suuqi wal xubsi wal faxshaai wal baas wala da nga gis nit koo xam ne yére yaa ngi wax allahu akbar ku mel ni kii amul te fekkee bakkan bi sellul ca yàlla xam nga Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu waxoon na ko nee na rubba abdin qad ala inda al uyun ka annahu quddu rahan xaysu yabin wa siituhum tasharat fi buldaani wa huwa kal kirdi la dal rahmani bëri na koo xam ne dafa mel ni quddu fu mu feeñ ñu ne quddu zaman ñëw na rubba abdin qad ala inda al uyun daa kawe ci bëtu nit ñi ka annahu quddu rahan xaysu yabin dafa mel ni fu mu feeñ rek xutbu zamaana feeñ foofu wa siituhun tasharat fil buldaani turam tasaaroo ci adduna bi waaye soo demee ca yàlla wax wakal xiir di la da rahmaani moo ngi mel ni golo ca yàlla ndekete mbir mi du ci yére mbir mi du ci taar mbir mi du ci alal waaye leer la yaqdifuhu llahu ala qalbi man shaa min ibadihi maanaam leer la gu yàlla sànni si xol képp kum soob ci ci jaamam bi nga gis ndekete waaye daa ngi jàkkaarloog àdduna bi di wax ak ñoom te yow tey it mu fàttali ñu Ahmad ibn Hanbal nga xam ne moom borom xam-xam sax nee nañ mazhabu mazhabu xadisin Ahmad muhaddisun la faqihun laaj nañ ko juróom-benn fukki junni masala mu tontu lépp te xoolul kayit ajaaba ala sittina alfa qadiyatin bi axbarana la ansaha ifa luqali xam nga loolu may yàlla Baye radiyallahu anhu noonu la meroon Baye Niass dafa am xam-xamu zahir bu mat sëkk ndax kenn ku nekk xam na ne bàyyi nee na man alquran ak sunna gisuma ci kaw suuf ku ma ko gën a xam ndax nee na ñaari imaam la am ilamu anni ala basiratin min amri li anna indi imaamayni imaami fi zahiri alkitaab wa sunna wala adri man huwa alamu minni bihima wa imaami fi lbatini alcheikhu tijaani la yadibu anni tarfat ayn bàyyi ña seeni man ñaari imaam laa am ci kaw suuf benn bi alquran ak sunna la gisuma ku ma ko gën a xam beneen mooy Cheikh Tidiane yi fu ma toll rek moom maa moom may gis maa ngi koy gis du ma ndax koo xam ne da nga xam ne Cheikh Tidiane nekkul ku koy war a fàttu Baye Niass moomu moo tax nee na man maa ngi wom mot diine gi aqudu li diine mais wali zimaamun dama yor nos mooy xam-xamu zahir bi nit ki mënul liggéey ci diine bi liggéey gu wér gu sell te amoo xam-xamu zahir dangay xam luy alxuraan xam luy sunna mu nekk bagage bu mat sëkk ak matériel yoo xam ne moom ngay jëfandikoo pour mën a aquudu li maa ngi wamma diine gi wali zimaamul waaye maa ngi ak nos zimaam gi mooy xam-xam nit su amul xam-xam pour mu jubal ay nit day jafe gis nga xam-xam kese tamit du day fekk àndul ak jikko yu rafet comme ki nga xam ne mooy suñu sëriñ ñëw ziyaare bu Cheikh jikko yu rafet na xam-xam bi rafet na wal ilm in lam taktanif bu shamailun tulihi kaana matiyatan ixfaak euh, borom xam-xam ne xam su nekkee ne àndul ay jikko ak tey ay jikko yoo xam day kowel xam-xam bi boromam day échec abadan kon kii royuwaay la kii ñëw tey macha allah pour teew suñ jotaay bi yàlla rek ko indi su nekkoon ne leneen loolu yàlla dañ toog yàgg duñ ko fi gis ndax luñ tekki dara firi wuñ dara amuñ dara waaye kóllëre la depuis démb mu xam ne ñii ay ndaw lañ soxla na xol yi ñu jëmbat ci pour ëllëg ndax ëllëg ëllëgu ndaw ñi la bàyyi ñas nee ne euh, réew mu nekk pour mu avancer ëllëg pour mu développer jëm kanam ci ndaw ñi moo tax bàyyi ñes ne man yàlla su ma mayoon kun fa yakun lu ma wax amal mu am du ma soppaliku lu dul ci xolu ndaw ñi pour defal ko ndax ndaw ñi suñ baaxee lépp baax law kaana allahu azina lii an atasarrafa fi wujudi la rafaa bi himmati an itasarrufi fi gayri islaahi lqulub yàlla su ma mayoon kun fa yakun te am na ko xam ngeen bàyyi am na kun fa yakun moo tax soppaliku nag def na la mu wax bàyyi nee ne man maa dem ba kankan ca Guinée yàlla may ma fa kun kun saaqali latifu nahwa kankan wa rabbu ataani maqaama kun-kun yàlla woo ma naw ba dëkk bi tudd kan-kan yàllaay jox ku ko neex lu ko neex fu ko neex mu ne fala ma yàlla joxee kun-kun yaa bàyyi leen su ma waxee iqultu kun yakun bi laa tas lu ma wax amal mu am waaye dama jël mbir mi delloo ko yàlla laakin nani taxastuhu wakiilan ta'adduban faxtaarani xaliila maa tànn yàlla Eh, def ko wakiil ne yow yaa gën a xam li war a am pour muy am bàyyi naa la ko ndax mu ne surrom ba mu ko laajee ndax bëgg nga yow bàyyi bàyyi na ko bëgg ma su ma doon bëgg damay bëgg ñàkk bëgg laa uridu wala kuntu uridu la aratu an laa urid fallazi yuridu al murid fa dalika allazi urid mu ne bëgguma su ma doon bëgg damay bëgg ñàkk bëgg damay bàyyee kii bëgg mooy yàlla mu bëgg lu mu bëgg rek loolu laa bëgg kooku mooy maqaama yoon ci yàlla ibrahim bañ ko sànnee ci safara bi jibril def ko dab di ko wax ah yow euh, Ibrahim loo bëgg ñaan yàlla mu ne kafaani sualahu ilmuhu bi haaji soxlawul ma koy ma koy ñaan ndax xam na li nekk sama xol moo tax bàyyi ne man tamit li yàlla waxoon ci Ibrahim yëpp soo xoolee ci bàyyi gis dañ ko ci fekk waaye bëgguñu toog kanamu Cheikh Maa yi di jéem a waxantu ndax fi mu nekk nii euh, ku doon ut euh, ker ba dajeeg timis da nga war a wax sant yàlla rek waaye waroo bëri wax fi mu ne nii timis ñëw na mooy Cheikh Maa te ker lañ doon ut soxlawul may tudd turu kenn ndax ñañ waroon tudd daanaka euh, ñi ëpp ci ñoom Oustaz Ibrahim Thiam tudd na leen dañuy delloo micro bi ci Cheikh Mahi di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla di yokk kàttan yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar fi mu bëgg a yeggal xolu fi mu bëgg a yegg yeggal yoon ci yàlla Muhammad ak jeunesse bi tey ci diine bi ak ci tarixa bi ak ci fayda bi yàlla na ko yàlla may mu yeggal ko foofu ci barke alxuraan muy sonn ci ndaw ñi yàlla na ko yàlla fay ndaw ñi moom yoruñu fayam yàlla rek moo ko mën a fay yàlla fay ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdu awalu daawana wa axiruha euh, maa ngi profité di wax ne tey mooy anniversaire u cheikhatina euh, wa sayidatina wa mawlatina cheikha mariam ibrahim Niass euh, tey mooy anniversaire am mooy 24 décembre yaakaar naa muy anniversaire wu Jigi Koné di seetu Cheikh Oumar Fouti yi bokk ci xadara bi waaye Seyda Mariam dañ koy woyal woyam rek ngir barkeeloo ko ci guddi gi ahlan wa sahlan ummana ya shamsana ya zillana ya badrana ya izzana ya marhaban ya marhaban maryamu bintu cheikhina bushra lana is jittina ja assurur walhana ya marhaban ya marhaban أنت الحبيبة لنا أنت التي تسعدنا أنت القدوة لنا يا مرحبا يا مرحبا حججت بيت ربنا زرت كذا نبينا بشراك ما أسعدنا يا مرحبا يا مرحبا يحفظك المولى لنا في صحة وفي الغنى حتى تحقق المنى يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك صلاة الله ثم السلام فطرها عاشق فيك